dogal yàlla te nangu ko te bu ginnaaw bu weesoo loolu yëpp en 1922 ku ne xam ne dañoo bëggoon dévaluer le franc CFA tubaab bi jaaxle ndax pour ñoom du leen arrange seen trésor bi ak fii Sénégal naroon na suux daanoo dugg ci kàmb seen tubaab ci mbaaxam ak patriotisme bëgg réew mi bëgg Afrique bëgg àdduna war a xettali ñëpp irham jamel war a jël 500000 muy téeméeri junni ngurtu jamono yooyu moo doon budget du Sénégal multiplié par 4 boo ko doon misaal ci jamono ji day nekk 3000 milliards moy budget Sénégal fois 4 12000 milliards donc ko def ci réewam jox ko borom daaru mu indi ko fi ci banque française fi siège ci FM nekk tay te bimu mu ko defé tuba bi dañoo jom ni ki mo goré fi jaar ak mom mu jël li di def ba tuba bu ñaan Thomas Clément ni Afrique de buy développer wala Sénégal ci Ahmadou Bamba mi lay jaar ak i taalibe loolu ko nan Edem Kodjo ancien premier ministre du Togo mi ngi dund ko ko tapé ci Facebook euh, wala Google di observator ko gis observateur Union africaine la nana le développement de l'Afrique ne passera que par le mouridisme am yenen yeneen économiste yu ko wax moo kon réew mi Bamba comme c'est très légitime te yamul fofu serigne bi defal nako wa mak en 1925 waxa moy extrémiste yi bi ñuy attaqué Médine xajaratu xaswaat mooy xeer boobu ñuy yëndu bi jóge aljana réer duggu xalwa ku ñaan mohammedul Kurdi bi moo gis na lettre bi en arab ñëw sëñ touba ni ko ah dimbali ñom ndax ñu la tektal makka ngi jaxoso ta makka dafa désert won serigne bi jël souf bind xasida Mouhamadou jox ko raw lor lorsque le fils d'Abdallah vous a choisi comme voisin rëcc ngeen contents ñu kontaan diko tag Nan, ko la lumière de la sainteté est une preuve évidente mais ne peut la distinguer que celui dont l'intellect est illuminé diko tag Nan, naan ko le cheikh de la la et de la guidance y compris les créatures en toute évidence il est le l'océan de savoir qui déborde de bienfaisance il est l'astre de connaissance qui qui rayonne sur toutes les intelligences faut gudd mënuma lim Nan ko nak tu es notre sauveur et notre protecteur nous le clamons haut et fort pour que la les générations futures trouvent la voie du salut de nga liko ko waa wax kon sauvé na kenen ku dul wa Sénégal motax bimu bi dem mak sun borom niko ah rasulullah alayhi da la bëgg so dina juk seigne touba ne kon duma dem na baye juliti dem kon ku dem mak amal nga jukal seigne touba motax ci anzani baaxi min cheytaani mu ne man a an kara day yushkara sikki sak bo mak yonent bi du nangu sa aj yalla du ko nangu kon da nga goréwul motax khatimatu munajat muni kataba allah tabarak wa taala anal baytillah haram tarfaul malaikatu ila tuba wa fi rasulillahi mal amin wahyu la deng décrété na indil ma tuba euh, makka tuba waye du bâtiment yé dé biñi toxal saint louis capitale du sénégal diko indi dakar du bâtiment yé keuyité ya, lolu lèr la serigne tuba fofu la waxé jëre jëf serigne tuba yalla ko ndiko néna yalla ma sante wo yonentime tanéfem ya du muñ bu jani nee na ma jël sama xalima ni chakarani allahu inda jam yu jundi yàlla sant na ma devant ses élites kon nekkat sant sëñ Tuubaa dañuy toppandoo yàllaa ñu ko jëkk a def addiye nee na yàllaa ko jëkk jox ba may julli ci géeju ma eh, ci géej gi may tukki bata bay daaw bi ma kàbbaree la sunu borom bég jox ma xeetu addiye wax na ko sëñ Moulay Bousso ki njëkk joxe gàtt bi bi mu ko demee wecceeku ci màggal gi njëkk 1922 mooy ñàggal gi njëkk am jour mardi ci ci njaarim am na ñu ne 1921 kon nekkat addiye yàllaa ko njëkk a joxe sëñ Tuubaa amu morom borom daaru la ko na mu ni ko Mbàkke mu ne buñ ne Muhammadu Rasulullah mu ne ko xanaa julli ci moom sallallahu taala alayhi wa sallam mu ni ko man nag mu ne ko xanaa nga dimbaluñ ci mag ñi dañoo déggoon amul moroom kon moo gën a xam ne yàllaa ko kennal bokkul sax ci course gi nee na yàllaa ma kennal moo tax naan sëñ Tuubaa kenn la kennal sëñ Tuubaa am ñu ñu amul tawxiid nanguñ dogal yàlla naan loolu déedéet sëñ Tuubaa ko wax tax diimu xaalixul warasil wax da xadda ma nii wala yëkkaana wax sëñ Tuubaa wax yàllaa ma ber ci beram gi kennal ma jox ma ngëneel moo tax bokkul ci course bi kon dégg nga lépp lu ñu wax kon Serigne Touba wax na ko bare dañuy toppandoo rek sant na ko jox na ko addiya kennal na ko amul morom moo tax baabul muridina wal muridaat Cheikh Ibrahima mu dégg ma doonoo addoom yàlla maag mooma yem ci Serigne lu ko neex la ñuy wër suba nee na Serigne Touba yàlla amul ci moom sago wax na ko ci xasid ak mu mitu waduudu wuddani bi lantihaay bi am ni wal bistri wa billuhaay yow aji cofeel gi yow yàlla yaa ma sopp sopp amul fu mu yem boolu ceeg confiance ak mbégte moo tax mu yi am confiance te mbégte Serigne Touba ko moo tax ku bëgg lu neex te gën a gaaw lépp a baax de waaye sëñ Tuubaa daa gën a gaaw mooy ko Muhammad Rasulullah rek boo fa jaaree da am yàlla moom ni mu wax ci mooy bi inni bi mat xi xayantu rib xi xat an wa nuj xi bi naaj dama lay tagg samay salaire di sama succès yokk may am ay ngëneel ku bëgg gaaw am ay ngëneel salaire bureau yi doyul tagg sëñ Tuubaa ak jaari sëñ Tuubaa liggéeyal ko sa salaire day yokk mooy xéwal yu bari sa xol di neex même boo yoroo xaalis looloo jafe loolu amul prix waaw moom lay wax ci mooy bu sa succès nag di yokk ñu kii daa am bayra daa takk téere déedéet bayra sëñ Tuubaa koy joxe xasida yi mooy lim def ci xasida yi moom la naan xat faaka kab la xat la fal duru wala wa naf u jaa yi yaa tekki jéngi esclavage yi maanaam jéng loolu dafa xóot njaam gi ñu waroon def araab yi mooy li ñuy def di importer seen diine ñun duñuy arab ay jullitu sénégalais lañu ay africain noir fier de l'être nag loolu sëñ Tuubaa tax duñu ay complexe arabe duñu ay civilisation occidentale murid lañ di ay taalibe looloo dàq taalibe mooy cër bi dax sëñ Tuubaa loolu la xat faaka kab la xat baasa fad la ne na ngënee li feeñ dur wala lor dem na wa naf u jaay ma jàkkaarloog taw feexi nag mooy salaire yeeg payoor yi mooy màggal tubaa ak cant mooy li mu waxoon moo fi des wa umuri ilal jinaani i dun sama dund yëpp feet la feet nag du fo feet mooy xol bu réy koy def ndax bernde la ak xéwal kon sant Serigne tubaa rek a fi des Serigne Saliou wax na ko dara des fi du sant ak Serigne nan